الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى يجان تيرمي wax النحو الواضح كو تعرف عن الجارم المصطفى الأمين maas mu njëntal baat balaa mu am il faut jëmatul mu fii daam jumlatu mufida wax ji am njëriñ al jumlatu mufida wax ji am njëriñ al amsilatu misaal yi al bustaanu tool bi jaminun aji rafet la ashamsu jant bi taaliatun aji fenk sama fon na aliyun aliyin watatan couleur atafa dagg na muhammad muhammad tan docteur bi yaa ngi si dina dund ak sama ko jën bi biir ndox bi yaksur dina bari yaksur dina bëri an na xiiru garab tàndarma fil misra si misra zaata amal naa biñ seetantale at tarkiiba at tarkiiba toggale bu njëkk bi mooy albustaanu jamil fii da ngay da ngay leeral albustaanu jamil da wax ñaata ñaata baal boobu ñaari baal la asamsu taaliwoon mu tamit ñaari baat la sama aliyun wardatan ñetti baat la xatafa muhammadun zahratan boobu tamit ñetti baat la yaa ngi asama ko fil boobu tamit ñeenti baat la yak suru boobu tamit ñeenti baat mu ne ah, jumlatul mufiida mooy ñaari baat jëm kaw mu ne alba su isaat amal naa ñu seetan tale ak tarkiiwal awwala toggale bu njëkk bi wajat naa dinañ ko fekk yatarakkabu mu toggaloo min kalimatain si ñaari baat ihdahuma benn bi albustaan mooy tool bi wasaaneti ñaareel bi jamilun aj rafet mu ne fii ak kalimatu ula baat bu njëkk wax daxa moom donc waxiye moom al bustaan tool bi lam na fam lu ñu jëy illaa maanaam lu may maanaam masada aj wij laa yàq fi lay taxaatu li waxtaan muy benn baat rek muy see waxtaan maanaam al bustaan kese muy see waxtaan waxtaan nga xam ñaari baat al bustaan bi tamit yoo ko saay naka noonu alxaal mbir bi iza axas naa ñu jëlee al kalmatu saani baat ñaareel wax daxaa moom dong wahiya moom lakin na waaye nag ñun za damam naa dañu boole ixbaat kalimatay benn si ñaari baati ilal uxra jëm si beneen ana naxwi lati comme ni nga xam ne fi tarkiibi toogale waxul naa ñu wax albustaan tool bi jamilul aji rafet la ba xam naa dégg maanaam maanaam kaamilam bi

temps di leen ko compter di leen ak xaaj min haadihi si jumla si si mu ne di baat bu nekk di leen par xaaj mu ne baat bu nekk da nga koy xaaj maanaam nga ni albustaanu benn baat la jaminun tamit benn baat la mu ne wa hakaza naka lii yu xaalu leen wax fi amsaalil baqiyat si misaali des wa hakaza naka noonu yu xaalu leen wax fi amsaalil baqiyat si misaali des wa bi hakaza si li nara eh, wa hakaza comme nii yu xaalu leen wax fi amsaalil baqiyat si misaali des fi amsaalil baqiyat si misaali des wa bi hakaza baat wax daxa moom dong laa moom a ñàkk min kalmatayni si ñaari baat fa aksar lu ëpp ñaari baat wala lu ko fa aksar ñaari baat fa aksar lu ëpp ñaari baat xataa yastafi dina ko al insaan doomu aadama bi xataa yastafi ba mu al insaan doomu aadama bi faayatan jëriñam taamatam mu mag wa amma nahnu xum kon baat bu mel ni xum ijlis toogal takallam waxal xum baat boo baat boo xamante ni ñaari baat la waaye benn bi feeñu xum anta yow ijlis anta yow takallam anta yow ñuy nekk ñaari baat la waaye beneen baat bi feeñu mimma ci nga xam ne zaahiru la feeñ an noonu ne moom kalimatun def benn kalimatun waaxidatun benn baat la kaafiratun doy ci taxaatu bi si waxtaan wala sa nekkul fi xaqiqat si dëgg-dëgg bi kalimatun waaxidatun si benn baat wa innama huwa naka moom jumlatun murakkabatun jumlatun murakkabatun jumla bu ñu toggale la min kalimatayn si ñaari baat ihdaahuma benn bi malbuusatun bi ñu tudd la waxiya moom kum masalan misaal wal uxra beneen xayru maddatin bu dëgg la waxiya moom anta mooy yow allati na nga xam ne yafam xaa dina ko jëm ak saanoot saanoot dina jëm minal kala minal kalaami minal kalaami si wax fa in lam yuntaq di la tudd ci xaa si moom ñu baax subaay nii mooy misaal yi am ci la ñu ngi doon fëri moom la baax suñu fëriwaat mu ngi baax suñu bi tënk mooy tënk dars bi yëpp mu ne mu ne ak tarkibu toogale yi allazi yi nga xam ne yëf yi dina ko jëriñ fayal njëriñam tàmm tam mag yu sama dañ tuddee jumlatul mu féete am jumlu am njëriñ am njëriñ waaye sama ay daan ba tey kalaaman wax kalaaman wax mooy jumlatul mufiida mooy kalaam ah. kalaam mooy jumlatul mufiida su la laajee la mooy kalaam ak jumlatul mufiida lañu wutee nga leen dara ñoo mooy jumlatul mufiida jumlatul mufiida mooy kalaam min al jumlatu mufiida jumla am jumla am njëriñ xat tarak dina toogloo min kalimati si ñaari baat wa xat tarak dina toogloo min aksari si ëpp ñaari baat mu nuy jumlatul mufiida di ñaari baat mu nuy jumlatul mufiida day toggaloo si ñaari baat day toggaloo tamit si lu ëpp ñaari baat mu nuy jumlatul mufiida day toggaloo si ñaari baat tamit day toggaloo si lu ëpp ñaari baat mu kullu kalimatin kullu kalimatin bépp baat fi xaa si jumla temps dinañ ko compter jusan ak xaaj temps ak xaaj min xaa si jumla yi ba su nekkee ñaari baat jëm kaw baatu nekk da nga koy compté par benn comme nga ne albustaan tamrinaat tamrinaat ay tamrin awal gëstu bu njëkk amsilatu saabiqata misaal yi jiitu wa bay na nga leeral <coughs> adada adada kalimati li fii kulli misaal si bépp misaal mu misaal yi la limanoon bu nekk nga ñaata baat la ak ban ban la misaal yi nga joxoon mooy albustaan jamil yooyu yooyu limaan iqra jàngal al jumla aati jumlay dikki wa bàyyi na nga leeral al kalimaati baat fii kulli waaxidatin bépp baat minha si jumla yi mu nga leeral jumla yi bu si nekk ñaata baat la asamaaw asamaan si mu taroon aju taw la al xadiqatu jardin rafet la yantiqu dina dagg al mataru taw bi yasiru dina dina daw asihaawu ndiir bi yasiiru dina dox asxaabu niir wi dina fenk ashamsu jant bi waaw al ardu suuf si ak taayiru picc bi fawqa sayar ci kaw garab yi yaqtibu dina dagg alin alin azhara couleur bi bi kurati ci bal bi yanzilu yanzilu taw min asamaan yasiiru dina daw ak sufunu gaal gi fil bihaari ci kaw géej gi ci géej gi yastad dina tat albar sedd bi fawqal jibaali ci kaw doj bi mu ni bu nekk da ngay wax ñaat baat la mu ni assamaaw mumtaratun alxariqatu jamilu mu ni ba misaal yi jeex bu nekk da ngay wax ñaata baat la bu ci nekk ñaari baat nga wax ko bu ci nekk ñetti baat nga nekk ñeenti baat tamit nga wax muy tamarin taalis jéemantu jumla am jumlal mufiida jumla am njëriñ fi tarkib atis fi tarkib atis si togg lañuy ñëw mu ni mu ni jumla mufiida yi jumla am am njëriñ mu leesa nekkul al jaw jaw bi ak la lekk na faridun farid alxitaaru gëneeni sariyoon aji gaaw la lu nit taxat te boo góorgóorloo laytal marida yeneen ko aji feewar bi ak saw yëre bi nasibun aji set la alkitaabu téere bi alladi nga xam ne ak bintu bi bii jàng ñun fii dangay am njëriñ yi ak yi wax si fii mu tamrin rab arbin ijaal defal ijaal defal suñu misaal bépp misaal ñu am sureetul bépp ñu am sureetul aati misaal dikk jumlatun fii de jumlatan jumla fii de tan bu am njëriñ di waa daan ak matin nga teg baat mu la mu la mu la mu atin laamitin mu dëppoo fi makaani xaalis ci bërëb yëpp fii da ngay da ngay jël baat bu nekk nga mottali ko fi mu nekk diggante Niger mu ni Alonso Alonso Fekir Alxamaza si biir ka Alxamaza si biir kaaf si digg bi ay wala da xale bi ak paase yaa def moo tax yaa def mu nekk si digg bi ak sawru yëkk bi al ardu suuf bi yaa def mu nekk si digg al wala da xale bi al mu am yar la yaa def mu nekk si yaru bi tamit yaay mootali li nekk fii alxisaaru dàll bi dayirun aji xat la dayiqu bu bi yaa boo tamit yaa def li nekk fii alxamaru weer bi asamaaru asamaan yaa li nekk fii jumla muy jëmantu juróomeel dans danal kalimatin bépp baat kalimatin aati ci baatu bi min jumlatin jumlatin mufiida am njëriñ mu rakkama ñu toggaloo kalimatin ñaari baat ñun fii ñu nekk da teg ne da ngay teg boo xam ne jumla mufiida day ñaari baat dafi teg beneen baat bu mu nekk jumlatul mufiida boo xam ne dëppoo moom mu ne alxadiqatu jardin bi sajaru garab bi al azharu fleur bi ak chamsu jant bi kon mu nekk nag yaa rek baat mu nekk jumlatul mufiida mu ne daan tegal kël kalimat bépp baat min kalimat aati si si baati dëkk min jumlatul mufiida si jumlatul mufiida mu rakkatin mu mu toggal mu lam mu lam woo mu togg la min ak sori si ëpp min kalmatin si ñaari baat mu ñu bii tamit yaa si def loo xamante ni dina ëpp ñaari baat pour mu nekk ci biir mu fiida almaawu ndox bi ñaari baat tamrin sadis mooy jéema ita indi bi sadaa si juma jumalin ñetti jumla kullu waaxidin benn mu ne min ha si jumla mu rakkabat mu toggaloo min kalbata si ñaari baat mun nga indi ñett jumla yoo xamante ni dafa toggaloo si ñaari baat mu ni wa bi salaasin nga indi ñetti jumla bi salaasin nga indi bi kulli min ha benn mu nekk salaasi kalimatin bu toogaloo ñett ñett baat mun tamit nga indi beneen yeneen ñett jumla boo xamante ni si ñett baat la toogaloo mu ne suma bi suma bi sa raasi ñett jumla bi kulli benn mu ne bu toogaloo si ñeenti baat mun nga indi yeneen ñett jumla yu nekk boo si ñeenti baat la toogaloo li moo nekkoon suñu darsi tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lu si